you. maanaam mbay nga wax de. lan lañ bokk. bokkuñu daal. waaw noonu la mën a demee kay parce que yow ni nga ma sonalee yow ni nga ma sonalee ah yow ñàkkul ni man ak yow bokkuñu daal boo paree ñu ñëw ñu yónni. non non wax dëgg yow daal koo gis rek nga jël valoriser ko ñun ñu nga jël tegee ñu neen. kii non mënul am mënul nekk di sonn ci kër gi suba ngoon te mënul am bànneex ci kër gi loolu c'est anormal loolu moom du yoon yaay loolu war nga ko xoolaat quoi. moom dafa xam ne xamul yooyu moo Ah, ci suuf yi mu jëm nii. dana woon de baa mu dugg rek saytaane bi nga doon. daf nga dem jugal nga dem fi nga war a dem sama yaay bu ko toog. déedéet Ibou xam nga sama mu bëgg a man nii neexul. neexul mom man rek la teg bët dama ko 10 ans wala ko am 18 ans magam laa tamit. non non sama da koy comprendre yi def nii yëpp da juste pour toj kan lay toj sama tey ma mu jot su ma solee yére mu kan am 7 ans 8 ans ñu ne day toj ngir fu mu jëm ëllëg mais man magam jëmb laa tey yéen ñëpp man maa leen li muy def non mais.

nga nekk man maa la yónni ci li ma ko dénkoon moom mu jox la ci diine nga ñëw jox ko nga ne ko fi ne nga defal nga la. te xoolal yow li nga doon jug nii di yëpp ci ay affaire am nga nekkoon. man daal sama yaay sama yaay papis rek la daf muy. doom kër papis moom ñëwagul. sama kër maam waagu ñaar. yàlla dañ ko fa téye. yàlla bu mu fi ndogoo tey yàlla bu fi papis ndogoo tey. waaye amin waay ma ma lu mu koy wax. waaw Bintu ne não fi não nga jox ko diine. não não ko ci loo não d'accord waa jëlu não não ah daa ba baax. não nga não intérêt. Njaay não ko ba isso. foofu bunt bi nag. loolu nekk si si ma trop ndogoo ma waagu ñaar fii laa dëkk. xam sama yaay sax. mais école kenn doon jàmm. suukaruñ bi suukaruñ suukaruñ café eh, eh. Nafi Mbaye moo bëgg Nafi ma defal la fan bilaay yaay foo ma defal sama kër maam nekkee sa turandoo Nafi Mbaye moom doomam duuru tooñ ma ma dóor ko mu am lu muy wax la moo la fa tere woon toog ndogoo mu foofu fii laay ndogoo yow Papis war ngaa changer Papis Papis war ngaa changer yow sama kër maam di ko waat kañ nga fa gëj kañ nga fa gëj baax na continuer nii li ma door doomam duuru moo tax nga koy faral sa turandoo nag ba gis danga ndogu te noppi. waaw merci nga wax naa ma. nekk ci kër fii laa la wala. tuuti de ba ma defal fii. <laughs> sa morom bi ci def da nga leen a gën. fii dafa tuuti xam nga indi foo may defar. loolu sa tànk yow. on engrais. ay man mbay ndax damay joom ah man ana mbay de sama kër gi boo këppee sama li fi nga may defal waa kii xam na boppam. <laughs> yaay na fi gënuma Ibrahima gënuma fii nga may defal. paanu galangaar bi ba mu fees. andi. yow waxuma yow nga moroom yëpp sëy nga toog fii. kii du sa morom la yow. yow lu tax teg takk woo far bu ma am nga dàq ko kay xeexal moom nu may sëyee. waaw. lekk moo fi yaay. lekk moo fi fii dafa tuuti defar fii. waa Papis. Pabidin ha? Yo, xam nga nga rew ba yàqu yow. Ibrahima may ma. Fuy. May ma, jënd fi may ma. Yeah, doy na yaay doy na. Doy na yaay. Yaay doy na. yaay doy na yaay yaay du xeeba du jóg jóg ay yaay ay yaay yow tamit ay yaay yaay tamit lii ëpp na waaye yow tamit nag. yaay yaay lii ëpp na waaye tamit nag sa dóor yi dafa metti. bari jógal li nga def démb ba sama yaay dóor la xam nga ni yaa ko teg sa bopp Papis lan ngay mel ni xale bu ndaw yow am nga 14 ans ba dugg ci sa 15 ans nga jàpp ni ba léegi 5 ans nga am ñam kenn du ko toroxal nga jël nga lax bi dem tuur ko ci suuf lu tax ngay def loolu ah. Nafi dootuma ko defati xam nga man bëgguma lu la metti dootuma ko defati. li ngay def ci kër gi tegoo ko fenn papis tegoo ko fenn de. dootul am waa Nafi. Hmm? li mu jëndal vélo. vélo mën naa la kaa jëndal ndax yéen yéen a tax may rey sama bopp muy yow ak sama yaay ak Ibrahima yéen ñi samay rakk mais damay bëgg nga góor góorgóorlu papis ni nga nekkee ci kër gi ñaaw na dégg nga. waaw dinaa la ko jëndal mais bul jaar ak moom ci tali bi de. non déedéet jaaroo ci tali bi damay dawal ci côté camp bi noonu la. waaw kay su ma la jëndalee nga ànd ak ñoom Mika ak ñoom Babacar ngay dem di fooy ji foofu. te bu école ubbee nga respecté sa jàng bi dégg nga. léegi da dem ci butik bi nga jëndal ma caakiri ak soow. waaw. lan la. na fi wóoro. li may wax tee ngi nii. maa ngi lay yedd pareeguma ma dangaa xam la moo ma tere woon. demal leen nga ñëw damay dem yëmbal palaasu Bintu Xaddam. waaw ah, euh, ngi ñëw nii sa palaas dama doon sangu sol yére rek voilà léegi paquetel ma lépp maa ngi ñëw ok d'accord nuyul ma xaddam tout here. boole tax nga réew yow bu nekkee si di jaay affaire caat affaire réewoon. Omar Sarr man réewoon hey tëjee sa gémmoñ waaye nga leb lebal di jaay yaru épisode yi foo jëm ci biti bi. fa la na lan la yónni. neen li ma yónni bu ma ko wax kenn. ñan la la jox. एनिमी पर आए सुनना जी

Malaya gën a wal nag. allah. waaw kay yow Papis en parlant de loolu. yow man dama laa xaar ba mujj gi ma dem atelier bindu xadda Papis ana li ma la yónni woon te wóoru ma lekk ma. dama ah? fubali woon. Papis ma jox la 1000 francs la ak ak pom bu ma ma nga fubali est ce que ñooy nekk mag. dama fubali woon rek. football. yow ngay football. dégg nga mille francs yaa ñeme yàlla woon. Ibrahima. mille francs yi moo ngi nii. Eh, waaw d'accord jëlal. merci hmm. ah. police nga leen wax lan nekkoon. di leen Ibrahima. Ah. Ah. sama xarit nga nag waaye comme dafa fubali woon. boy bobu tuwe borom kilon tam na oma sa oma sa ma dom mari am ñi ay dal ma win wa oma sa tam nak la tan ba bis de pay da fu bele won ibrahim ibrahim man duma sa morom de arrêtez sama ndey xam nga nag wax ji du loolu wax ji xam nga lan la Papis mi laay dugal ci karaté ndax yaram bi dëgër. comme mm-hmm, mm-hmm. moom en chaque fois moom moroom rakk bi rek koy dóor Papis yow li ngay lekk fan la lay jaar Papis saako ceeb laa jënd teg yow bu dul koor gi da ngay ndékki ba suur añ ba suur ñun defar la njogonaw yow guddi gi dama lay jox jox la boisson pour la ngay di la dóor.

ba ba oo. yaa yaa li nga commencé dina yaa li nga. ay waay Ibrahima. Ibrahima munoo ba kii di lay wala Nafi Mbaye ngir yàlla munoo leen a toog nag. na ma yow sama pare say 1000 francs naa ko delloo sax yow. Ibrahima Nafi Mbaye nekk leen ay mag bàyyi leen kii booru ndox ngeen koy jooyloo da ngaa ñàkk. <laughs> waa noppi noppi boo dogo pare ñu am doxal. Napin? Dan mo kayo Wah, kamusta? Ya, ging kumasa ito na niya. Ya, ging ang kumasa ito. I love you. Kamusta ka ano? Lamban ni Nah, kalau mau sanjang gadi. direct la nag comme tey moom mooy sama retour ci live bi moo def ma bëggal jàmm ñi waaye nag tey dañ maa am ñu jàpp ci combat bi de ah. maam jaara complexe àjjana sopp Serigne Saliou fa Mbàkke. moo tax it urul fi ñu génn fi yam ma fa de tey kay ñi ma bokkal Serigne bi rek kii moom. caat mu Serigne Saliou nekk ci Pikine salon caat. ñoo ma génne fii tey. macha allah. damay jàkkaarloo fans yi nag comme dañ maa namoon te maa leen noo def tey direct bi xaw a fàccaaral wàcc. waaye problème bi du loolu de sama yaay bu cuuboo rek ma yàqu te danaan direct bi du ci kër gi. non yow maa ngi ci kër gi. Oh, waaw fi mu ne mën def Facebook. te cuum te cuum. moom koor gi koor gi. Eh. ah ah baax na. sama liggéey laa doon dama gën ah, ah damay ragal de nga yàqum koor. waaw est-ce que du ma génnee wala jar ko. waaw allah. waaw ah, waaw. ak kana am. jongoo ma de bañ jox ebola. waaye xam nga ni koor gi damay changer méthode. waaw. tey moom il faut ma laal ci sama mbokku taalibe Serigne Saliou dangay live jarul daal dangay live life oh, ma lay live eh, man instant bi man whatsapp laa lay live. xaaral ma kale son eh, eh, yi para pare léegi comme yow admin nga foofu dangay ci sama page. del tontu commentaire ci suuf ndànk na maa nga ca. d'accord wow Fadel Fall dugg bu dem moom li ma dal moom gaañ su ma dalaatee tey moom gaañ bu baax ci man comme nag démb laa toog gars yi di jékki-jékki gis yi daw. man dama tourné dugg sama gaari. Astou dugg na Awa Pikine dugg na Adja Koro dugg na ay ca waaw xam nga ko ma gisam papa ay ca ñu dem. onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant sang-sang yi Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam ah di sant ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Mbacke sama yaakaaru tey ak ëllëg borom jàpp ndal xabbaan borom laga nag ndookaan borom daaree njurul ah di sant nag ñi nga xam ne ñoo jàpp ci combat bi ku ci mel ni ajjana salon bi nga xam ne moom mooy cat fële ca Pikine sopp Serigne Saliou cat mu moo génn ci greffage baax bi àjjana moom moo génn ci yére bu baax bi moom tamit sopp Serigne Saliou la ba léegi moo tax morceau bi nga xam ni moom laay ubbee maa ngi ci bégal ñaar ñoo ñooñu nga xam ni tey ñoo jàpp ci combat bi ba lépp yemb ñu ubbee sama mbokk taalibe bi ñuy wax taw Mbaye. Tawfekh Mbaye. kooku de Serigne Béthio yal na yàlla yokk leer. Tawfekh. mooy ko a ba tax na maa ngi jéggalu ci direct yi nga xam ne maa ngi ko def taa yëpp ci Facebook bi te arrêté woon ko tubaar fa kàlla macha allah dara waralu ko woon lu dul weeru koor bi bëggoon a jël congé waaye ndekete fan si nee nañ duñ ma ci bàyyi benn yoon ay ca ñu doxal ak ki nga xam ne mooy Tawfekh Mbaye di gone géejawaay ba ci kanam ca Mouhamed Niang Serigne Saliou na nga am sa jël ma am sa ma jël man bu nekk fa bu ne sama jël jël am waay waay jaay nga jaral ay ca fa laay jaaree dugg ba Touba daal di ziar ki nga xam ni moom mooy suñu xalifa di Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te waaye di euh, nuyu ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Thioune euh, Gueule Tapée di ki nga xam ne mooy xalifa général yu ku lu cantaakul Serigne Saliou ñoo na yoon bi ayof lool lool lool Thioune Balla ci yéen papa gis nga ma maa ngi direct may ma sama jam maa ngi direct ok yaa ngi tax maa ngi stoppé lii damay animé. ba soof moom. waaw du démarré ti ne bàyyi ko. ay jëf yu jégalu waat rek ah, sama fan si macha allah daa am ah, ku duggoon ci néeg bi. ay ca am na kuy demandé Mouhamed ñan kooku mi ngi tudd Astou Ndiaye. gurba kii la yow na mer kay ma wan la kay na manti ko gurba la Sëriñ Tuubaa ni noon min na laay ay ca macha allah képp koo xam ne yaa ngi àddu rek jamono ji ñu toll nii ki nga xam ne moom mooy sama Facebook dugg ci sama direct maa ngi lay jaajëfal di la kontaan di la may Mouhamed Niang moom Serigne Saliou Mouhamed mu baax moom sama waajoo ji nga xam tubaab fakal la Masyaallah, boye mu neex bu tëggee mu neex bu riimee mu neex mu. Mouhamed Niang Mouhamed Niang. Mayo. répondre loolu waaw gars yi dugg comme sa sur. waaw allah. bëgg non mais booy mu mool sax. doo changé de. moom émission bi nii la quoi moom. nekkaan gi ki ne maa ngi lay siyaar bu baax a baax di la jox sa wàcc waaye di la may ma mën a ñëw di wax ni nga nuyu ma waa yëmbaru dëggu yëpp ay ca fa lay doxantu rek dem ba yëmbal daal di nuyu sama yaay mbay monsieur Diama Kumba Sène bañ ko li Fatima Joojo borom ngaay Birama Ndate yàlla di nuyu waa yëmbal rudda bun bi nga xam ni falaa nekk falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee di nuyu waa Pikine yëpp yëpp waaye di doxantu nag ba Italie di ko may sama baay ba Sadio Ndiaye sama xoyaan Fatma Ndiaye xarum law be ndeena càmm Demba Ngom ak Demba Ngóor may naa la Mouhamed Ñangi maa ko wétte léegi yow ci bëccëgu koor ndax koor gi day métti bu ngeen ñu dul kii ñi ñuy pàkkan ñi di leen kii day doy waar ay ca jaaree rek daal di dugg Paris daal di nuyu sama waaji sama waaji ndama ngi ci waaye gàccee ngi ci a ceeka cam-cam Babel Demba Caam maa ngi lay siyaar di la jox moo xam ne Niang bi di la laaj mbaa sa xol a ngi feex rek nga daw dugg ba péex daal di tëmbal galaas daal di féex mbokkum yaay jaraafloo siréexu jëkku mbaak gayneel fas waa nga naam hmm, mbokkum yaay Diop Fall di nuyu waa Paris gépp gépp gépp macha allah di nga xam ni mooy Mouhamed Niang ba léegi la gars yi di laaj nee nañ sonw Serigne Fallou bu mu Mouhamed Niang ki koy laaj mooy Zeyna Fall euh, Pikine Zeyna jugal fee. <laughs> Serigne Fallou kii ku xam na ni Mouhamed li nga wax Serigne Fallou day. jar na ñun taalibe Serigne Saliou yëpp ñu daal di jaay suñuy kër rek daal di dajale weccat wa ñëw la ko def ko àddee Serigne Saliou waaw kay ndax li nga way magam ji ëpp na ëpp na ëpp na. ay dafa lay jaaree daal koy may sama danseuse bu mag waa Aja dem ba marché zeng may ko sama waji Adja Kuro mu Serigne fallu loko wax lu du Serigne fallu du ko yow kon Adja jëlal yaa moom li Serigne Fallou kii ku eh, ma yaakaar xoolal lii sama fan si. waaw barki Serigne Saliou. gaa yaa ngi. waaw waaw. waaw. booy xool booy mu tourné booy mu wala de. waaw. ay ñax. waaw. ay ñax. waaw xoolal waa ji. waaw. ah. gaan bi dafa jóg bokkul war lan la. mu ngi yàq direct bi de. Hmm. lan la. moo tax ma lay woon nga may harcelé. eh merde. parce que gis nga direct lan la. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. yow dama laqale da nga soof. ah mbër nii. xanaa du yaa xuloo woon ak man. d' accord vingt francs ak trente francs léegi nga foog ne ah ok yaa ngi si ku yaa ngi cool quoi. am na ñu ma ko tane vingt francs ak trente francs yooyu. Hmm. am na ñu ma ko tane. d' accord léegi da ngay añ. waaw téléphone bi si boppam laa jël. waxoo dëgg. ah waxoo dëgg sama téléphone du dem. kaa jël ko. parce que dama ne am na ku nekkul ci néeg bi de rakk ji la. sama téléphone dem téléphone bi. sama téléphone du dem. du dem sama téléphone du génn. relation la ñu séq. waaw yow indi téléphone.

waaye ki dafa soof waay. d'accord waaye yow damal ñu am lan moo fi benn njëriñ ba pare ba ko sonal nit ñëw di impose li ñu doon defee bi yàqu na ko. bu coupé woo direct bi. dama ko fàtte dama. putain na fi nga ne way what mais nan la mën a gisee nga def live Facebook après mu ñëw foofu di def yenn violation affaire yooyu ñu fi con yooyu mooy lan am moom dafa xam ne ay tuutaag ñoo nekk ci gàlle bi mais ba gaañu la waaw waaw ok léegi dinaa la yónnee trois cent mille ok après nga dem faju bi ndax man bëgguma dara lu xool sa yaram ok oke, đã có chưa cần Kau nggak, Pak? Mangga satu. Wala. Gila, dulu dulu deh. Jauh nggak mau nyukup buat ribet, video dulu. Bunyi wakil yang ngesut sedih sih, Reina. Nanti ngeser, saya tuh beda nanti, mau ibu. yow xanaa li ma laaj tamit sama numéro moo tax nga tudd. sama nekk fii laa dugg tey duggoo si kër gi. léegi nga maa may ma jàll. may wala nga jàll laa la wax. waaw. Papis koo wax ni yow. laal fi sori. fi. duggul ci kër gi laa la nga def. eh baa jiw dugg. dugg fi. fu nekk nii solo fi. Eh, yaay. an ngay dugal. dugal dugal. jugal yaay yaay Aïssatou Ndiaye bi dugg ci sama live. waaw waaw keroog maa ngi lay gis yaa ngi commenté kay. man la kay ça va bien. ça va bien naka waa kër Mbaye Fall. ñu fa ñu ci jàmm bu baax. ça va ça va bien ah kontaan naa ci yow mbaa doo xeesal comme man. <laughs> déedéet doo xeesal de. <laughs> déedéet. ça va. ça va bien ça va ça va bien merci. ah man nag dama dama doon déglu tout le temps. Hmm. bëgg la torop rek. ndeysaan ndeysaan. nee na ma gëj la dégg mu métti ma. aywa métti ma torop. ñoo ngi tuuti. ma war la wayeeg si fii. ah ok yaa fi ñëwoon keroog. man na waaw. Ibrahima wax na ma ko. ñëw naa fi kay benn ngoon barki démb waa Ibrahima wax na ma ko kay. man la pourtant nag euh, yow tax nga sax ma bokk yow mën naa ne yow yaa yokk tax tey ma reprendre waat laay fi parce que bi nga demee rek après Ibrahima dafa ñëw nag daal sama kaw ne ma sa fan si chaque jour ñu ngi commenter affaire yooyu ba tey am na koo xam ne koo jaral mu jógee kër Mbaye Fall ñëw ba fii. looloo tax ma reprendre maa ngi tudd bu baax chéri. ah war ngeen dee xalaat a baax loolu moom dëgg la. moom yàlla xam ne dama laa bëgg. bëgg rek moo tax ma déplacé wu kër Mbaye Fall ba fii. dëgg ñëw gis la. kontaan naa de. ndax yow na waroo di toog parce que da ngay dindi stress. ndax bu bokkee ci man moom bu ma mee 100. <laughs>

waru di dugal seen relation si ay émission daf ñu war di sóoraale xam naa du sa sago mais métti nañu torop waaw xam nga ñàkk xam rek ñàkk a xam rek mais bu comprendre ci métier bi ma doxalee noonu mais maa ngi jégaluwaat rek daal maa ngi leen tubalaat yéen ñëpp daal waaw maa ngi leen rek nag du ma fi géej léegi bëggee sax mu ñëw dëkk si ah dëkk moom ëpp na dëgg moom ëpp na moom dëkk moom ëpp na moom. billaay sama yaay dina nangu ndax xam na ni dama laa bëgg. ah. billaahi dina nangu. ah waa d' accord léegi après dañ may jox sa numéro su ko defee man ma woo la comme ça man dinaa ñëw ba sa kër ñëw set si sa sa yaay. mu ñëwee ñu waxtaan loolu moom amul benn problème. waaw incha allah. Mhm. waaye xanaa mën naa ñëw fa taw maa ngi yow. waaw d' bàyyi ma def Nafi rek comme Satou ak Nafi moom. benn la. xaar ma def mais quand même yaa ngi am jàmm. waaw maa bu baax. profil WhatsApp ma <laughs> ci bëgg allah. bilaay. ah gis nga numéro allah <laughs> man mi profil WhatsApp. danga wax ak moom. yaay dégg. sama kër gi damaa bëgg a laaj ndax auberge la wala lan la. maa si lan. Nafi bi koor bi commencé danga ne woon ba nga direct te loolu nga waxoon waxatuma nag papa jugee këram am autorisation ñëw fii ne day xeex seeg yow. tay marché yoonu marché marché masse fuma romb sa direct bi la waxtaan sax sa liggéey la duma la ko tel waaye nga am noo koy defee yaay loolu sama sama sama sama fóon la ndax moment boobu papa man maa yoroon téléphone def dama jaxasoon tellement ba C'est koo ko sama erreur waxati ñëw leen ñu ndog na fi mbay ee am na sama eh. eh. fan si boobu noonu loolu moo fi indi sama yaram moo xam kan sat loolu moo fi ci direct bi la doon wax yaay papa mi ngi bëgg ëppal trop c'est trop gis nga prochaine ko defaatee dinaa woo procureur parce que li fi am ni dara neexuma ci démb. mais nag am na loo ci xam Ibrahima mii dóor ma ko ba génn gi tëj xeex na parce que dañu day yóbbu sama téléphone. moom ban autorisation jëwaate mooy li ma la doon wax nga naan ma Nafi Mbaye bàyyi leen bu ngeen nekkee ci ak nit bu ngeen demee bu commencé am tur ah bàyyi nit kooku di ko jënd leen lii la papa jikko di la yor na tey boo fekkewul woon di danga naan man maa sikk yii lay def sama yaay ak yeneen yu bëri dama la ko doon nëbbu parce que ndax la xam naa ni dafa sori ci sa xol mais xoolal lii direct sama fans yëpp connecté mu ñëw di ma toroxal man ban autorisation la am rek laa xool xool xaw ma ko war nga waxal moom de sa sa kii moom sa sa sa sa fan si moom pas gis naa commentaire yi Facebook comprendre nañ la bu baax a baax a baax. pas. Ah. yaay li ngeen doon waxuma ko dafa am gel. yaay man kan kan nen nga may defal de. kan la. nen. ñaari nen doo ko romb. moo wax noonu. ah. yaay defaraat man moom xaw ma dara waaye su fi ñëwee su fi ñëwatee man maa koy lijjanti man. koy lijjanti yow. fi nabi bu fi ñëwatee man maa koy lijjanti. sa taw yi ka daw sa daal na yaay yaay commencé te commencé te na yaay. man daal di daal di daal di baax na. waaw moom kanati la woon. moom Omar Sarr. may. na may nekkal mag. 400 mètres la daw 400 mètres. Ibrahima. maa ngi indi daal yi nii maa ngi indi. bàyyi leen di jooyloo kii waaye ñàkk ngeen fay la torop. la ñu wax noppi. Naik kunci mu jëlaay dàll. <laughs> Ibrahima toogal heure ndogu jotati na de. baax eh eh Papis jeex na. eh wuy ma yow Papis Papis eh, wuy ma ah yow tamit dañuy kaf rek ah ah caatuwaay jam na dégg nga man daggal ma yow soo ma daggalee man dinaa ndog. tey sax yéen yaay ndogal palaat bi yëpp. Eh, eh, chat. caat caat. waa toogal kese am. Dagay aja lekan. Lekan maya ma ko lekan yo kesi lekan. Lekan. Leza pakai dulu ya. Ah, soalnya jadi apa? Oui, j'arrive. Wow. Comment oh Quelle beauté africaine. Papa. Allez, ça va. Ça va Ça va bien, ça va Ça va très bien. Et voilà, c'est euh, Fatima Jaga baax doom. au sama mag Mau ko may. d' accord moo la ko may allah. oui fan ngay dem nii si. si damay kan? si kaw si sëñ bi yow mën nga laajte de. waaw mais yow ma laaj de parce que Nafi man maay secrétaire may bras droit man la ñëpp di maa koy man maay plateau am wala buy ma su waayee la bienvenue Bakar maa koy téye maa koy téye yow jiitu rek macha allah. ok merci. sëñ kii koor mu dàqati koor waaw waaw foogoo loolu wax. Ah, ci kanam waaw ah, baax na soo yow li nga wax téléphone bëri na de yow koy waxal sax yow ah, gis nga de ah jal bi Nafi la tudd Nafi. Nafi la. waaye booy Nafi rek looy laaj ci sant bi yow tamit nag Nafi la tudd. moo wol foro bi parce que man dafa am benn Nafi bu ma xam boo xam temps yii ñu ngi wax man ak moom bi. ah non non non non ki ma wax final la ñuy wax quoi final. Mhm. sama doomi ndey di sama rakk di sama lépp ba tax ma wowoon la tey waxtaan ak yow di Nafi Mbay ak Ibrahima. Nafi waaw ndax Nafi Mbay ak Ibrahima dañuy jàpp Papis di ko kompaloo ba mu nga ma yóbbu Fatick kër Ndey Issa Diouf xam ne loolu dafa def ci mag ñu toll na ñoom. ah Nafi de taaw la tey taw bu jàmbaar la Nafi jàmbaar la de. kumba na fi taaw bu jàmbaare la mm-hmm. ndax na fi ku ne xam ne ne location bi mu seeree moo ma koy fayal fan wi jun ndox na ma koy fayal moo may fayal courant mm-hmm. mooy joxe dépense mooy fay jàngu xale yi ak samay bëgg-bëgg waaye na fi mbay dafa lànk ne du togg mm-hmm. ndey màggeen mbay sama rakk laa ko joxoon ak borom këram Badara Sow ñu yàq na fi mbay ba mu yàqu yaxeet ñoom yaakaar nañ ne na fi mbay na fi mbay xale bu ndaw la te na fi mbay du xale doomu jëmm la bërki dem maa gis mu ni ko woo appel vidéo xaw ma la naan ko ndax kenn saagawu la ndax xaw ma kenn ku cokkaasu la ñoom jàpp nañ ne na fi mbay fukki at la am ba léegi na fi mbay du xale waaye nag bul fàtte koo yow mënoo leen bokk ci xam nga ne na fi mii mbay màgget moo ko yar te na fi jàmbaar la mënul daw dépense bu dëgg bëccëg di ko booleek toog loolu mënta nekk te yow mii sax mun ko toog yow 40 ans nga am kon yow mii mun ngaa nekk ci waan bi di togg di yàq ne fi moom jàmbaar mënul booleeg togg de waaw kay. maa togg de waaye na fi bay def maa joxul cër de na fi bay jox cër. waaye xam nga ne nag doomu jigéen ak ndeyam. ay moroom lañ. weddiwu ma la de doom bu jigéen ak yaayam ay moroom lañ yow ni ma amee na mbay xam nga ko fukki at ak ñett fukki at ak ñeent ci la na fi mbay judd na fi ñépp yaakaar nañ ne juruma ko damaa ko jur ndax lan li mu tolloog man lu war a lii yëpp xam nga lan la ñàkk gis seen baay dong la moo ko waral. bu gis seen baay day tax bu ma jox cër waaw day tax ma jox baay dañoo gisul seen baay te yow sax am naa sama càmmiñ bu baax ba ma la bëgg a may. sa càmmiñ bu ma bëgg a waaw ak xale yi jigéen gi ak ñii. Hmm. ñii de ko xamal naa leen nag ñii nii bis bu ñu gisee góor ci kër gi dañuy rek ñàkk a gis góor ci kër gi moo tax lii yëpp di am te man sax fan yi dinaa ko dox dinaa ko dox incha allah pour may la sama càmmiñ bi rek. Nafi Mbaye de moom dana ma. ma abal moom Nafi Mbaye de moom nday màgget dana fexe lu ko Nafi Mbaye fekkee Italie ndax man mii xaw ma. Nafi de du dem ci kër gi lay bokk. Ibu bu ñu dañuy bañ a comme man sol naa ba pare ba takk sa dàll la ñuy def. d'accord baax na waaw. dégg waaw mu koy bu ñu rek. il faut ma tëggal ko. ay woyu woyu. <laughs> ma fayul sama xaalis tey dina xam ni lépp dëgg la. ah war na fay nag te yàgg de. man moom tey kon de ma jàpp Ndeye Fall moo triant yëmbal ba yëmbal dañ Ndeye Fall ko gën a triant. na naa kii Nafi Mbaye. neexu la. Nafi Mbaye terewuma la ci koon. <laughs> yaara ndogu ba pare la te sama néeg laa baal li ngay def bëggal jàmm. Nafi ma baa yaay na xoolal nag yaay xoolal yow nag ñoo bëgg a terroriser nag. Ah, ah. Ah, na fi mbay na baa bi deñ bala ñoo ndaw. sama néeg sama néeg bii gan ñëwul man génnu ma nga ne naa simmee ko simmee ko pour lan yow sama yaay aana ah man nag yaa aana bu dee da bëgg di sol ci tuba yi ma may la ci bopp. te bu dee bu dee moom da nga am mbokk moom Palestine wala dalay laaj. amee borbara. mooy kan yaay. ah Seydou. yaay kan mooy amee borbara. ah maa ngi rëy ngeen yaakaar damay caaxaan. yow de waa léegi wax ma bii la lii moom boo ko ma may la vingt mille kan mooy amee borbara. xaw ma ku mu doon mooy amee borbara. xa woote ji la fi may. dinaa woote ji waa léegi wax ma amee borbara. waxuma la. waaw doo ko ma xamale borom. te li a neex mooy temps yi meer day day yar la. day le ah. dee mooy seen i duma. ma am la yow booy dee mooy da ngay duma. ana Fatou. Fatou ne Fatou ne andil ma boog soos bi ak mburu mi comme que ci suba ba léegi maa ngi ci waañ wi danc danc. yaay léegi nag man bala ñoo ndaw bëgg naa laa ñeent yaay yow 11 jours man dugguma ci waañ bi nga ne sama togg doyu la ndax kër ndey màgget bi ma fa nekkee daaw ma togg ba pare yaay fi mu nekk nii nag man li ma naqari mooy. nit ñi japp nañ ma baña togg tay yow ya bëgg di togg sa bokk ah yaay léegi suba yi ma togg. nit ñi liñ gis rek lañuy wax. légui ma togg. bo xey demal ma sa dem ma sa wonu wolé kon do togg xara kay ma wax jaay ko jaaykatu jënd ak yoy ñu ñëw fi ma jënd. waaw ah, dugg ci marché bi togg. Ah, waaw waaw tay wa kay. man na né wax nga dëgg. waaw waaw. mer da saf loxo nak mais xam nga moom jaaxal suba ba légui dama gisul papis lay man mom la bëggono wax yaa na papis. papis dama gën ma taal ba fatik kër ndey sa jëf yóbbu naa ma defi ni Ya iya yaay kër gi dafa xat ba ngay jël papis di ko génne kër gi. eh damaa dem weekend ma jël papis ca penc. ko ko demee tegal ko foofu. oh yaay yaay yaay yaay yaay yaay ya. tey def nga ma lu ma metti iya yaay yow tamit iya, yaay. yaay yaay ñun ñoo bokk ndey ak c'est normal ñu toog di kaf di ree lu ñuy def ambiance la rek. man wax jooju attanuma ko ak koor o attanuma wax jooju yow papis yow ñun buñu bu ñu waree ci papis dañuy o koor léegi nga jël papis yóbbu waaw léegi ñu ngi noo dox xel noo ma dox ki ne gaawal o soos beeg mburu bi o yow é vraiment yaay tey moom defoon nga wax o yàlla man moom bëggatuma o dañ koy weer noonu yàq nga sama yoon bi ba ci o Saliou

yaa ñu jur mais ñun tamit am nañ ci moom dogal. moom da koy jëli yaay da koy jëli de. léegi daal xeelil sa mag xeeli man ma toog. waaw baax na xaaral xeelil la maa léegi sax loolu lépp wax bu loolu lépp jàllee ba ma tàggoog seen papa yàgg na boobu ba léegi maa ngi toog toogaay bi yàgg na ba tax na nag dañ may may borom kër. lan. Ibu lakk na sama yaay. damaa tiit di. E, way ya ndaw sama Ibu. ni de len dese won ak man. Ibu ya bu ne mo moo leen dese. axa kay axa kay. Ya bu ma ci boolee. ah Idda Idda da Ibu lakk nga sama yaay. ibu lii ngi la. na fi man ka dama tiit. wa bi Ibu bu tiitee da ngay lak sama yaay. sama yaay bi mu sama papa légui léegi. ñu ngi yow merde sekarang. Iya, iya, ini. Iya. Ini yang dikirim sama Arab ini. Nih, dia banyak Arab kan?